maam Cheikh mooy kaaraange yoon bi. maam Cheikh mooy kaaraange ak yoon bi. loolu loolu ku ne xam na ko. loolu ku ne xam na ko. ndax moo ko jëkkee woon. ndax moo ko jëkkee woon. muy dox muy dox. ba jamono agsi fii. ba jamono agsi fii. doxinu jamono day soppiku. doxinu jamono nag day soppiku. kon nag na na gën a leer. kon nag na gën a leer. kaaraange gi ci dëkk bii tey. kaaraange gi ci dëkk bii tey. gën nañ leen koo dénk. gën nañ leen koo dénk gën nañ nu koo dénk ñun njabootu Cheikh Rafal. la ci gën a metti nag la si gën a metti nag mu gën noo metti mu gën a metti sëñ bi gën noo naqari gën noo naqari mooy politique dëkk bi mooy politique si biir dëkk bi loolu nañ ko jaare ci yoon loola nañ ko jaare si aw yoon moo tax jaare ci yoon mm. waaw dëkk bi moom li ñu gën a bañ na mooy politique sëriñ bi nee na dëkk bi li ñu si gën a bañ mooy politique mën nañ mën nañoo ñu koy def mën nañoo seet feneen fu ñu koy defee nag dëgg la mbàkk waaw waaw <laughs> nee na sëriñ dëgg la mbàkk du ko tudd waaye mbàkkee ngi fi waaw kon loolu moo jiitu. nee na kon loolu moo jiitu. kon mu